chers téléspectateurs de la première chaîne privée du Sénégal la 2STV tey ngi ci treizième journée comité national de gestion des courses hippiques muy amee fi nga xam ne mooy hippodrome Ndiaw Macodou Diop Thiès tey dimanche 14 avril 2024. au programme ñoo am 57 chevaux répartis en cinq catégories première course bi muy les PTA les poulains de ñu nekk 11 partants war a daw distance su 1650 mètres. deuxième course muy les PDA les poulains de deux ans ñu nekk treize partants war a daw distance su mille deux cent mètres. troisième course muy groupe 3 ñu nekk douze partants war a daw distance su deux mille deux cent mètres. quatrième course mu nekk groupe 1 ñu nekk dix partants war a daw distance su deux mille deux cent mètres. cinquième course muy groupe 2 ñu nekk onze par war a daw distance cent deux mille deux cent mètres. kon tey ñu ànd nag suñu consultant waaye ànd ak suñu caméraman bi nga xam ne l'infatigable Adama Sall ànd ak ki nga xam ne mooy suñu consultant muy ma Ba dugg ak yéen ci course bi wan leen li nga xam ne moo am tey ci treizième journée bu CNG course hippique muy amee fi nga xam ne mooy hippodrome ko du Diop nekk fii ci Thiès. course lañ bëgg course épique la ñu bëgg ñun. course lañu bu nu déglu seetaan yeeg noon ni di ñu jaxase bu ñu nangu sport bi kenn di ko def marché. ñoo bokk benn bëgg-bëgg te mooy course fas ngalab kun ko jox nanga ko teeta dee si njaaxaar naay fas bu ñuy taw pëndi bi wuru de bëgg a ci tir bi ràmm la ñuy def rek jitum golo ak caggum kooni xool leen ci saxir caam la première course est réservée aux poulains de 3 ans 11 partants pour une distance de 1650 mètres numéro 1 commando propriétaire Maïssa Sele Ndiaye jockey Momad Dieye corde numéro 6 numéro 2 Magodoya propriétaire Amadou Sele Ndiaye jockey Ahmed Diop corde numéro 10 numéro 3 Xare propriétaire Omar Ndiouk jockey Ngagne Dieng corde numéro 10 numéro 4 Damel Daou Demba propriétaire Babacar Mbagnick Fall jockey Saliou Gueye corde numéro 9 numéro 5 Jëf Jël propriétaire Hassan Khazar jockey Fallou Diop corde numéro 1 numéro 6 Mampenda propriétaire Amadou Doudou Gueye jockey Oumar Sarr Diallo numéro 3 numéro 7 yaa ñuy moom propriétaire Oumar Bawa Junior jockey Mbaye Diène Diallo corde numéro 7 numéro 8 Chérif Ale Diagne jockey Alassane Seck corde numéro 4 numéro 9 propriétaire euh, professeur Sakhir Thiam jockey Yamar Gaye code numéro 8 numéro 10 Dundu propriétaire Pape Moussa Thiam jockey Modi Kassé corde numéro 2 numéro 11 Linguère Ngone Dieye propriétaire Babacar Mbagnick Fall jockey Mohamed Gadiaga corde numéro 11 11 partants pour une distance de 1650 mètres que le meilleur gagne dans le fair play et dans un esprit chevaleresque waaye ki ñi nga xam ne moom la ñuy jàpp comme favori mooy Linguère Ngoné Dieye ndax am na sept participations am trois victoires ak benn placé ak quatre placé waaye ki nga xam ne mooy Chérifou moo leen deuxième mu ndax ki nga xam ne mooy confrère d'écurie ñëwul tey muy yëgul buur nekk favori bokk ci favori waaye ñoo ngi xaar ki nga xam ne mooy Mampenda jëf jël ak ki nga xam ne mooy commando ndax commando tey jockey bu mag moo ko war muy Mamad Dieye 11 partants pour une distance de 1650 mètres gars yi jóg nañu mooy li nga xamante ni ñoo am ñetti at jóg nañu door nañ ki nga xamante ni moom mooy Lamtooro mu génn doomu Calvos bi génn na en deuxième position euh, xare moo fa nekk. troisième position en troisième position Linguère Ngone Dieye quatrième position ki nga xam ne moo fa nekk moom mooy fas boobu nga xam ne mooy Magadoya Magadoya en quatrième position waaye ki nga xam ne moo nekk ci kanam mooy Lam Toro deuxième position ki fa nekk mooy Xare troisième position Linguère ngeen a jéey quatrième position Magadoya. Magadoya en quatrième position waaye ñu ngi nii tourné jàkkaarloog ñun père Amadou Diallo euh, Lam Toro ba léegi moom moo génn en deuxième position Xare troisième position lekk Linguère ngeen a jéey quatrième position nekk ki. nga xamante ni moom mooy Mampenda waaye dawal nañu xare Père Amadou Diallo mu ñëw ànd ak ki nga xamante ni moom mooy Lam Tooro ñu ànd dawal ñoom ñaar ñëpp waaye li ngeen ngoone jéey mu ngi en troisième position. waaw li ngeen ngoone jéey mi ngi en troisième position ki nga xam ne mooy man Mampenda mi ngi en quatrième man Mampenda tey mi ngi en quatrième position waaw gis nga ko. gis nga ko waa xare xare ñëw na en deuxième position waaye dawal nañ li ngeen ngoone jéey dawal nañu dawal nañu lingeer Ngone Dieye dawal nañu Mam Penda dawal nañu Dund. dawal nañu lingeer Ngone dawal nañu Mam Penda léegi ñoom ñëpp dawal nañu ñoom ñëpp génn nañ dawal nañu ba léegi Lam Tooro moo génn dawal nañu Mam Penda dawal nañu lingeer Ngone Dieye Mam Penda jaar na ca kaw kaw mu ngi daw lu bare bare bare Mampenda Père Amadou Diallo Omar Sarr Diallo moo ko war tey Mampenda moo moo moo jaar ci kaw di daw lu bari en deuxième position Mampenda moo fa ne position nekk Linguère Ngone Dieye waaye Lam Tooro ba léegi moom moo génn. Lam Tooro en première position en deuxième position. Mampenda en troisième position, Linger Ngonedjei en quatrième position, Khare, Khare en quatrième position, cinquième position Mampenda, sixième position Daour, Dam, Daour, Daour, euh, euh, euh, Damel Daour, Daour Demba. Waouh, Lamtoro Monek Chikanam Batei en première position Lamtoro, en première position Lamtoro. premier Lam Toro temps 2 minutes 22 secondes deuxième Mampenda troisième li ngeen ngoone jëy quatrième xare cinquième a entre jëf jël ak ki nga xam ne mooy Damel Daour Demba waaw Chérif tey amul xaalis Chérif tey amul xaalis mu nekk course boo xam ne Lam Tooro wane na boppam am na sept participation tey tey la inscrit li nga xam ne mooy deuxième victoire am kon moom bokk na ci ñi nga xam ne dañuy éligible ci li nga xam ne mooy grand prix chef de l' ndax am na ñaari premier ak ay placé. am na ñaari premier ak ay placé moom mooy Lam Tooro nekk doomu Calvos Calvos nekk doomu Detchaar mu bokk écurie euh, réunie bu professeur Sakhir Thiam. ñoo ngi fii ak euh, Moustapha Ndour Moustapha Ndour nag di nga war yàgg ci course. tey Moustapha ñibbi si nga jóge bitim réew ñëw tey ñu ngi ci treizième journée comité national de gestion des courses hippiques tey boo doon wax ni nga xam ne noonu la course yi commencé comporté wu lan ngay wax lu jëkk euh, course yi euh, li ma ci gis man mooy dafa am amélioration te amélioration boobu pour mu am il faut il mu am foo xam ne foofu lay jaar parce que loo gis rek dafa am descendance quoi léegi nag comme que yegg si na foofu ñi nga xam ne ñoo ko ŋànk ñooñu nañu comme li ma wax sànq rek nañu jéem a améliorer mu jëm ko ci kanam quoi parce que ñun aussi wa euh, defuñu ko pour dara dañu ko def rek ñëpp gis ci seen bopp kon bu ñu defee dara ba nit ñi ba nit ñëpp mën cee gis seen bopp kon bu euh, euh, au bout du ku ci nekk ci sa bopp rek di nga xool ndax gis nga ci sa bopp wala déet. La deuxième course est réservée aux poulains de deux ans treize partants pour une distance de mille deux cents mètres que le meilleur gagne dans le fair play et dans un esprit chevaleresque. waaw ñu ngi nekk treize partants waaye tey booy xool Linguère. Euh, Euh, Damel Biram Yacine Boubou dafa def si course de rentrée ki nga xam ne moom mooy fas boobu nga xam ne mooy fiis de Déthié mi ngi jógee Njàmbur Njaay moom aussi dafa def si course de rentrée waaye booy xool assura mi ngi jógee écurie Sala bu Bunaama Diop dafa def si course de rentrée waaye nga xool Aminta Ndiaye jógee écurie Njàmbur bu Maysa Sélé Ndiaye dafa def si course de rentrée. léegi rek mu daal di jekk c'est parti 13 partants pour une distance de 1200 mètres à parcourir. 1200 mètres à parcourir ki nga xam ne mooy Mizane <laughs> Mizane mi ngi ko tiim Mizane ak Verilov Mizane Verilov Mizane Verilov Mizane ak Verilov. Verilov. en première position. En deuxième position, Mizan. moo Mogno en troisième position. Verilov moo nekk en première position Mizane mi ngi daw ci aras bi ak Ami Fall Mizane Arim Fall. Mizane Ami Fall waaye Verilov ba léegi moo génn en deuxième position nekk ki nga xamante ni moom mooy Misaan troisième position Ami Fall moo fa nekk waaye Ami Fall jàpp na Misaan wutali ki nga xamante ni moom mooy Verilov léegi Ami Fall ñëw na en deuxième position en troisième position nekk Misaan waaye Ami Fall ak ki nga xamante ni mooy Verilov na nañu nekk benn fas. waaw Ami Fall ak Verilov Verilov jiitu ba tey. Very Love en première position ki nga xam ne mooy Ami Fall moo nekk en deuxième position 200 mètres moo leen dese à l'arrivée ci diggante Very Ami Fall Mizane en troisième position Mizane en troisième position Very Love moo nekk ci kanam ba tey Very en première position Mizane ñëw na Mizane ñëw na Mizane Mizane ñëw na Mizane ñëw na Mizane ñëw na Mizan Very Love mooy Ami Fall troisième position <laughs> Madoki moo jël quatrième Madoki moo jël quatrième waaw euh, une minute quarante secondes lañ ko daw dañuy xaar euh, li nga xam ne mooy photo finish bi dañu xaar euh, Mizan ak Very ak Very Love Mizan la ak Very Love ñoo dalandoo ci tableau bi nañu xaar mu leer waaw ñu xaar les résultats provisoires waaye fas yu nga xamante ni moo doon ami euh, kenn la si man ñu changé tour bi def ci ami faal moom moo occupé li nga xamante ni moom mooy la troisième place. maître Diagne kay gis nañ fas yi daw muy les PDA mu am exéco. exéco euh, la effectivement moo dans le jargon hippique on parle de dit hit c'est le langage consacré. Euh, bu lu mel noonu amee les deux chevaux considérés comme en euh, fait dit hit dañu leen di boole prix premier prix ak deuxième prix séddale ko si digg bi ku ne jël genn wàll. donc loolu mooy li nga xam ni noonu la ñu àttee euh, répartition wu enveloppe bi nga xam ni moo ñëw ci ñaari première place yooyu donc premier ak deuxième dañuy boole l'enveloppe du premier et celle du deuxième. xaaj ko si digg bi ku ne jël genn wàll mais par ailleurs on comptabilise le nombre de premier pour chaque cheval chaque cheval est considéré euh, avoir eu une participation victorieuse pour cette course-là. loolu baax na pour leeral ko maître jamono yi nag coow li bëri na ci monte en suspension bi gis nañ boo toogee jogal rek ñu dàq la. bon c'est une question assez assez assez complexe surtout pour le membre du comité que je suis C'est pour ça que je ne veux pas m'avancer trop sur cette question-là. Euh, li ma la mën a xamal mooy c'est une question qui est à l'ordre du jour et qui sera euh, discutée en commission, en intercommission, pour euh, prendre la meilleure disposition. Euh, si on considère que ça doit sauter, ce sera l'intercommission qui va le décider. Mais en tout état de cause, le Sénégal ne peut pas se singulariser sur la montre en suspension. Euh, comme je disais, je ne veux pas trop m'aventurer, mais c'est une question à l'étude. La troisième course est réservée au groupe 2, groupe 3, 12 pour une distance de 2200 mètres. Numéro 1, Sakoki 2, propriétaire Maïssa Selendiaï, Jockey Salih Kobar, cordon numéro 5. Numéro 2, Damel Amaringone Sobel, propriétaire Babacar Mbagnik Fall, Jockey Khadim Bay, cordon numéro 10. Numéro 3, Dadi, propriétaire Sidi Ndaw, Jockey Momad Dieye, cordon numéro 4. Numéro 4, Mbay Babacar, propriétaire Goro Sow, Jockey Yamar numéro 6. numéro 5 Nour propriétaire Adja Thiou Diop jockey Saliou corde numéro 3 numéro 6 Assirou propriétaire El Hadji Samba Diagne jockey Cheikh Mbacké Fall corde numéro un numéro 7 Mambo King propriétaire euh, Oumar Bawo Junior jockey Fallou Diop corde numéro 7 numéro 8 Maganeex propriétaire Dame Bawo jockey Mbaye Diène corde numéro 12 numéro 9 Chérifou propriétaire Dame Bawo jockey Omar Sarr Diallo corde numéro 8 numéro dix Dija propriétaire professeur Sakhir Thiam jockey Mohamed Gadiaga code numéro 2 numéro 11 Mamou Kor propriétaire professeur Sakhir Thiam jockey Khar Boy code numéro 11 numéro 12 Ragal Yalla propriétaire Abdoulaye Kouroubari jockey Eliman Fam corde numéro 9 12 partants pour une distance de 2200 mètres que le meilleur gagne dans le fair play et dans un esprit chevaleresque C'est parti. 12 partants pour une distance de 2200 mètres. Père Amadou Diallo door nañu maga neex mu génn. maganeex neex moo génn en première position. Sakoki 2 en deuxième position en troisième position. Ragal yàlla Ragal yàlla Ragal yàlla en troisième position maga dafa xëy génn waaye Sakoki relevé na ko. sa coquille 2 moo nekk en première position Saliou Kobar moo ko war ah maga neex en deuxième position dawal nañu ki nga xam ne mooy ragal yàlla dawal nañu ragal yàlla waaye dawal nañu dadi dawal nañu dadi mi ngi ci biir groupe bi <laughs> dadi moo nekk en quatrième position maga neex deuxième position troisième position dadi dadi ragal yàlla en quatrième position Damel Amari Ngone Sobel mi ngi ci biir groupe bi. Damel Amari Ngone Sobel mu ngi ci biir groupe bi waaye Dadi moo toog en troisième position en quatrième position ragal yàlla moo fa ne waaye ki nga xamante ni moo génn moom mooy ki nga xamante ni moom mooy Sakko Kido deuxième position nekk Maganeex troisième position nekk ki nga xamante ni moom mooy Dadi waaye dawal nañu Assirou mu ñëw ci biir groupe bi ñu dawal Mambo King mu ñëw ci biir groupe bi Père Amar Diallo boo ko leen nañu 1000 mètres mu dese 1200 mètres. waaw 1200 mètres loo leen waaye Maganeex ñëw na ci kanam sa coquille en deuxième position en troisième position Dadi Dadi en quatrième position en quatrième position mbay Babacar en cinquième position le numéro 11 mooy Mamoukoor Mamoukoor ñëw na en cinquième position Maganeex waaw Nour moo jiital fas yi. Nour moo jiital fas yi maganeex neex mag maga jox na leen trois longueurs. maga jox na leen trois longueurs waaye en deuxième position mbay Babacar moo fa ne troisième position nekk ki nga xamante ni moom mooy Dadi léegi laal nañu digg tàllal mi ñoom ñëpp dawal nañu ñoom ñëpp dawal nañu. ñoom ñëpp dawal nañu waaye maganeex yokku na distance bi per amaru Diallo ñu dawal dameel Amari Ngone Sobel mu jaar ci kaw Maganeex en première position jox na leen quatre longueurs deuxième position Damel Amari Ngone Damel Damel Damel Amari Ngone Sobel Maganeex moo nekk ci kanam ah, Damel Amari Ngone Sobel Maganeex Damel Amari Ngone Sobel Maganeex Maganeex Maganeex Amel Damel Amari Ngone Sobel <laughs> deux cent mètres moo leen dese à l'arrivée ak Mamou Koor. deux cent mètres moo leen dese à l'arrivée diggante Maga Neex Damel Amari Ngoone Sobel Mbay Babacar Damel Amari Ngoone Sobel Mbay Babacar Mbay Babacar Damel Amari Ngoone Sobel waaw première première le numéro 4 Mbay Babacar. deuxième Damel Amary Ngoné Sobel troisième Mamou Koor quatrième Maganeex cinquième Mambo King waaw euh, mbay Babacar moo leen raw moom mooy le numéro 4 mi ngi raw ci temps wu 3 minutes 12 secondes mbay Babacar mi ngi doog a raw bi saison bi ubbee ak léegi ñuy féliciter ki nga xam ne mooy Issa Gueye Issa tey nga raw groupe 3 bi gis nañ euh, Mbaye Babacar constant woon fan yele ci ginnaaw mais tey nga jël premier. waaw di sant yàlla rek. vraiment di am contentement ci bis bi tey parce que wax dëgg yàlla fas bi yàgg naa wane lu mel noonu parce que saa su ne Karim daf wax na ma ñaari fas yi wax dëgg yàlla bu kii amee premier kee dafa war a am deuxième mais nag tey suñu borom dogal na ko mais vraiment victoire bi ñu ngi ciy kontaan bu baax tey victoire maa ngi ko tuddee Abdou Karim Dieye moom mi nga xam ne fas bi lépp moom la man xamuma ci dara mënuma ci dara defuma ci dara vraiment ñu ngi koy remercier di ko ñaanal bu baax et puis di yi nag lii ñu def tey. ñu répété ko répété waat ko parce que fas bi nag yàgg na ko wane mais xëy la ko suñu borom dogal. la quatrième course est réservée au groupe 1 10 partants pour une distance de 2200 mètres numéro 1 Jamra propriétaire Mohamed la jockey Salih Kobar corde numéro 8 numéro 2 Medina propriétaire Cheikh Ahmed Tidiane Sy jockey Modou Modou Dieye corde numéro 2 numéro 3 Kasumay propriétaire Oumar Bao Junior jockey Oumar Sar Diallo corde numéro 3 numéro 4 Tawféex propriétaire Oumar Bao Junior jockey Mbaye Diène Diallo corde numéro 10 numéro 5 Lat Fatim propriétaire Iba Tamsir Bao jockey Fallou Diop corde numéro 7 numéro 6 Adjudant propriétaire Sidi Ndaw jockey Alassane Seck corde numéro 1 numéro 7 Linguère Tening Euh, Babacar Mbagnick Fall jockey Mody kase code numéro 6 numéro 8 Linguère Maguette propriétaire Babacar Mbagnick Fall jockey Ablaye Kassé corde numéro 11 numéro 9 Ndamli propriétaire professeur Sakhir Thiam jockey Mohamed Sissakho kordu numéro 4 numéro 10 Bourax propriétaire professeur Sakhir Thiam jockey Yamar Gaye corde numéro 9 10 partants pour une distance de 2200 mètres, que le meilleur gagne dans le fair play et dans un esprit chevaleresque. muy nag li nga xamante ni moom mooy la quatrième course muy groupe 1 ñu nekk fukki fas war a daw distance li nga xamante ni moom mooy distance li nga xamante ni moom mooy 2200 mètres waaye ñu bàyyi xel ki nga xamante ni moom mooy Tawfekh ndax mu ngi fi gëj li nga xamante ni moom mooy huitième journée. bi mu ñëwee daf leen a raw ñu bàyyi ko xel bàyyi xel ki nga xamante ni moom mooy euh, Medina ñu bàyyi xel ndam li bàyyi xel buraax ak ki nga xamante ni moom mooy Lat Fatim ñu nekk 10 partants war a daw distance su li nga xamante ni moom mooy 2200 mètres. C'est parti. waaw le départ est bien validé par Amadou Diallo. Ils sont au nombre de 10 partants. C'est Fatim qui mène le peloton, suivi de Linger Tingling en deuxième position. Waye Lat Fatim dornañ ko mu génn père Amadou Dia. Linger Lat Fatim en première position, en deuxième position Linger Tingling. Linger Tingling en troisième position, adjudant Montok en troisième position, Joke Bikowar moy Alassane Sek. waaye tey Lat Fatim jox na leen trois longueurs deuxième position Linguère Tening troisième position ki nga xam ne moo fa toog mooy fas boobu nga xam ne mooy adjudant quatrième position gis nga ko <laughs> ah, ah, tey rawante bi dina teel a sens. rawante bi tey dina teel a sens waaye quatrième position ndam li moo fa toog waaye Lat Fatim joxe na ñaari longueur en deuxième position Linguère Tening troisième position gis naa léegi ñu dawal ndam li mu ànd ak Jamra ñoom ñëpp ñu ànd dawal waaye mel na ni Lat Fatim li leen jox bari na ki nga xamante ni moo fermé la marche moom mooy Linguère Linguère Linguère Maguette. waaw Jamra ñëw na ci deuxième peloton. Jamra ñëw na deuxième peloton Jamra ñëw na deuxième peloton mu ñuy seen Jamra Jamra mi ngi ñëw en ci deuxième peloton bi mi ngi ci deuxième peloton bi léegi ñu boucler 1000 mètres yi Lat Fatim en première position en deuxième position Linguère Tening Linguère Tening Linguère Tening Jamra Médina avancé ndam li ñëw na waaye ndam li ñëw na ndam ñëw na le numéro 9 le numéro 9 ndam li ndam li ñëw na en deuxième position ndam li tawfeex ndam li tawfeex ndam li ak tawfeex waaye gis naa Jamra mu toog en quatrième position Lat faatim yokku na distance bi waaye tawfeex ñëw na en deuxième position troisième position ndam li moo fa nekk waaw Lat Fatim ba léegi moom moo génn léegi laal nañu digg tàllal mi ñoom ñëpp jël nañ seeni i biir don def avancement ndam li ak ki nga xamante ni moom mooy tawféex ànd nañu nekk benn fas. waa ndam li ndam li ñëw tawféex ñëw na tawféex ñëw na tawféex ñëw na en première position tawféex ndam li Lat Fatim tawféex Medina mi ngi daw ci kaw lu bëree bëri dawal nañu Adjida dawal nañu Kasumay Medina ñëw na seen kaw Medina ñëw na seen kaw. Médina ñëw na seen kaw Médina attention ah taw féex taw féex Médina ndam li Kasumay ñëw na Kasumay ñëw na Kasumay ñëw na Kasumay ñëw na taw féex Médina 200 mètres moo leen dese à l'arrivée. 200 moo leen dese à l'arrivée taw féex Lat Fatim taw féex Lat Fatim taw féex Lat Fatim taw féex Lat Fatim taw féex Lat Fatim. première le numéro 4 Tawfekh deuxième la numéro 5 Lat Fatim troisième Médina quatrième Damli cinquième Adjudant waaw Tawfekh raw na ko fas bi am na changement daw na vitesse daw na gaawaay daw na ñeme waaw Tawfekh bi mooy quatrième réalisation mu am ko bi saison bi ubbee ak léegi mi ngi ko raw ci temps wu 3 minutes 06 secondes. course hippique sport bu noble amul violence depuis 1900 ba 2000 tey ma gis ay lance ñoo bokk ndey ñoo bokk baay nañ ma yente sens bokk nu fu nu far wante ñooy àndandoo di danse. Ndioma Codou Diop ak Alpha Diagne. mbokki propriétaire de chevaux mbokki amateurs yi. Euh, li nga xam ne mooy résultat groupe 1 bi après enquête des commissaires bi ñu demee ci VAR bi génnaat dañoo dàq fas bi nga xam ne mooy Tawfeex jëloon premier dàq Lat Lat Fatim bi jëloon deuxième dàq adjudant ndax taw feex dañ ne jockey bi dafa toog waaye Lat Fatim dañ ne jockey bi dafa gêné ki nga xam ne aussi mooy adjudant jockey bi dafa toog moo tax résultat yi nii la tëddee premier. ki nga xam ne moo ko jël mooy Medina ci temps wu 3 minutes 06 secondes deuxième ndam li troisième di ki nga xam ne mooy Buraax quatrième Jamra cinquième di Linguère magget noonu le résultat group 1 bi tëddee ñuy waajal nag li nga xam ne moom mooy course bi nga xam ne mooy tëj tey journée de course yi mooy ñi nga xam ne ñooy groupe 2 bi groupe 2 bi ñu nekk 11 partants war daw distance bi nga xam ne. mooy distance su 2200 euh, mètres. C'est parti pour la cinquième et dernière course. Groupe 2, 11 partants pour une distance de 2200 mètres. Eh, eh, Las Palmas jërëjëf Père Diallo ki nga xamante ne si moom moo génn moom mooy Waly Maye deuxième position Alpha Ndiaye waaye taxawaa mooy daw ci aras bi ki nga xamante ne si moo jiital fas yi nag moom mooy ki nga xamante ne si moom mooy Alpha Ndiaye non non c'est le numéro 9 ki nga xamante ne si moom mooy baax de waaye Waly Maye moo génn day jaab rek deuxième position Alpha Ndiaye moom day jaab rek Père Amadou Diallo. waaw Waly Maye en première position mi ngi bokk écurie bi nga xam ne Ndiaye Njàmbur bu Maysa Sele Ndiaye ki nga xam ne moo ko war jockey boobu mooy Yamar Gaye en deuxième position ki nga xam ne moo fa nekk mooy fas bi nga xam ne mooy Alpha Ndiaye euh, jockey bi ko war moom mooy Mamad Dieye en troisième position gis naa Laurado Laurado gis naa ko mi ngi daw côté corde Laurado mi ngi daw côté corde Laurado Laurado en troisième position am nañ 800 mètres. am nañ 800 mètres fi mu nekk nii Miss Yacine mi ngi ci peloton bi taxawaay ñëw na en quatrième position. jërëjëf mon Wali Maye moo génn moom doomu Calvos la Dassar Médiciane Maka Villel Mister Prospector deuxième position Alpha Ndiaye Lawandi Sosogna Alteri Selkiriki Sarbata Native Dancer troisième position Laurado Soleil de Minuit John Quart Sada Joel Nozen Dancer wante baax de mu ngi daw ci aras bi ànd ak wante Darou Sam moo fasi wante ba léegi Wali Maye moom moo génn Yamar moom moo ko war wante Louga ñëw na Alpha Ndiaye ñëw na ñoom ñëpp xam ne mooy le numéro 10 ak la numéro 3 le numéro 10 moom mooy fas boobu nga xam ne mooy gàllaaj le numéro 3 mooy fas bi nga xam ne mooy lawrado waaye Alpha Ndiaye dafa mel ni moo jiital peloton bi Alpha Ndiaye en première position en deuxième position Laurado en troisième position ki nga xam ne moo fa nekk mooy baax deux quatrième position Taxwa Taxwa en quatrième position fi mu nekk nii les choses sérieuses commencent. les choses sérieuses commencent dawal nañu Alpha Ndiaye dawal nañu Laurado dawal nañu Lugolo Lugolo daw na tàkk tàkk c'est le fils de Bermeko. docteur Fon Chris S Roberto wante ba léegi Alpha Ndiaye moo génn ki Mamad moo ko war na de Keba Dieye waaye deuxième position Laurado moo fa ne wante attention baax de attention baax de baax de génn na baax de génn na Kena Cross kenn Darsan Ken Dor Ken Mar Kalamoun Zedane baax de génn na Mbaye Diène Diallo moo ko war deuxième position Laurado. première position baax de ki nga xam ne moo fa nekk moom mooy Alpha Ndiaye quatrième position. Taxawa 200 mètres moo leen dese à l'arrivée 200 mètres moo leen dese à l'arrivée Bax 2 moo nekk en première position Mbaye Dieng Diallo moo ko war première position Bax 2 deuxième position Alpha Ndiaye deuxième position premier le numéro 6 Bax 2 deuxième Alpha troisième Taxawa quatrième Laurado cinquième Lougalo sixième Miss Yacine ñu ngi raw ci temps 3 minutes 8 secondes. baax de mi ngi doog a raw mbokki tefes yi mbokki amateurs yi lii lañ leen jëleloon njaw ma koddu Diop pour le compte de la treizième journée ma àndoon ceeg sama doom Pape Madiop Ba àndoon ceeg nag Las Palmas ñu gën ko xam ci Alassane Sissoko waaye di jaajëfal suñu caméraman bi nga xam ne mooy Adama Sall ci liggéey bo rafet bi nga xam ne mi ngi koy def saa su ne